baabun li bunt la fi shuhati ci dab dab liñ ci jublu boo bokkee kenn loo xam ne séddoo leen ko ci suuf mbaa yu tax ci suuf tam jekki-jekki jaay wàllam yoon da lay may nga dem dabi ka ko jënd daal koy remboursé njëg bi nga xam ne moom la jënde woon yow nag boo dikkee moom lépp nit yaa ak sa mag wala sa rakk ngeen doon noon kër ci seen bàyyi mbaa ci keneen te séddoowu leen ko moom nag mu jekki-jekki daal jaay wàllam kon yoon da lay may nga dem dab ka ko jënd remboursé ko njëg gu toll ni ba mu jënde woon boo dikkee yow daal di moom lépp féete woo ko yow dong ñu ko leeral léegi wal xibati ak maye wal sadaxati ak saraxe wal xubusi ak xubusle xubusi daañu ko wax wal rexni ak tayle wal xaariyati ak able wal wadihati ak dénkaane wala nga leen dénkaan rek wal waqatati ak por wal xas bi ak daan jël daan jël mooy nangu nit nangu alal nit ci kaw doole ak doole nit nangu alalam yooyu mooy yu war a andi ci bunt wi wa innama shufhatu naka dab fil mushaahi nekk na ci xaaj bu siiw ba nga wax ci wolof xaaj bu siiw waaye dañ ci jublu suuf ak li taq ci suuf maanaam lu mel ne suuf ak garab mbaa tabax yi nga xam ne day taq ci suuf te mënta jóg yooyu rek lañ la may soo ko bokkee kenn te séddoogu leen ko bu jekkee jekk jaay wàllam yow nga sañ a dab ka ko ka ko jëndoon remboursé ko njëg gu toll noonu te moom lépp waaw waaye nag ci loolu dañ ko nangu waaye nanguñ ko ci lu mel ne oto mbaa am xar mbaa leneen boo bokk na kenn ab oto mbaa am xar mbaa gëneem mbaa leneen tam mu jaay wàllam doo mën a dab ka ko jënd ne ko faaw damay remboursé te moom lépp déedéet suuf rek nga koy mën a am lu tax ci suuf wala suufata di dab fima muy nekk ci loo xam ne xat xasima séddaleef na ko nee na bu fekkee yéen a ko bokkoon waaye séddoo ngeen ko ba kenn ku ne am wàllam itam ku ne sañ naa jaay wàllam bu koo ko jaayee wàllam itam boo wax ne daay dab ka ko jënd di ko remboursé wala li jaayin du jaagee na ñeel dëkkandoo boo xam ne itam bokk leen alal da ngeen a bokk ay dëkk moom dëkkandoo bu jaay yëfam te tax nga sañ a dab ko ku jënd ne ko dama lay remboursé dëkk gi kese moom taxul nga sañ a dab lam jaay wala fii tarixin du caagee nu ci yoon wala xarsati daarin du caagee nu ëppub kër xat xasima boobu séddaleef na bu yootuxaa ay néegam nee na bu fekkee kër ngeen bokkoon waaye kër gi séddale nañ ko ba ku ne am say néeg yoon wa nga xam ne moo jëm si kër ga rek moo des te kenn séddalewu ko mbaa tub kër ga rek moo des kenn séddalewu ko waaye moom la ca des séddale nañ ko loolu dañ koy jàppee ne lépp lañ séddale xam ne ku jaay sañ naa jaay bu kenn ko wëlbati ko jaayit yow doo mën a wëlbati ku ne ndegam séddoo woon jëm si kër gi mbaa sédduñu ëtt bi rek daay dab ki ko jëndoon doon mu sewo déedéet doo ko sañ a dab wala fii fax li nax lim du jaageenu ci kuyal tàndarma aw bi ilal wala teen isa xusimat ndéem séddaleef na al naxlu tàndarma ya awul ardu wala suuf sax nee na su fekkoon day tookur ci misaal li ki tookur tàndarma ngeen daal di ko séddoo ba mu des tàndarma bu góor goo xam ne ku soxlaa góorul rek dem jël ca def ci sayu jigéen wala mu des benn teen boo xam daal di wax séddoo ñu bàyyi ko rek ku soxla dem root waaye jëmmi tookur bi moom séddoo ngeen ko yooyu jamono nañ jàpp ne daanaka séddoo na lépp rek ku nekk sañ naa jaay yooyu jamono ki nga ki nga bokkal bu demee jaay doo wax ne ah ndegam séddoo ngeen tàndarma gee mbaa ndegam séddoo teen bee mën na maa dab ki jënd déedéet doo sañ a dab wala shufhata di dab illa fil ardi ndare muy nekk ci suuf wa maag la nga xam ne yet tasul dana jokk bi xaay ci suuf minal binaay ci tabax wa shajari ak garab dab moom rux sa rek la ak jàppandal rek la jékki-jékki mooma kub jékki-jékki séq kub jaamaru ak xaw a diis te xamoo jaamar ba muy dikkee maa tax ñu may la rek bu dee suuf mbaalu tax ci suuf ni ki tabax ak garab bu koo ko jaayee wàllam te yëgoo ko rek nga daal dem sañ a dab loolee nga xam ne moom la jaay mooy remboursé kooku njëkk dikkewu moom lépp waaye suuf mbaal ju taqar lañ ko mayee wala shufatu di dab lil xaadiri ñeel aji teew baax da sanati ci gannaaw at nee na nag bu fekkee ne ki nga bokkaloon jaay na wàllam fekke nga ko yëg nga ko waxoo ci dara ba mat atum lëm kon nee na jeex na ba mu wëlbatiku naa damay def ko ko jëndoon remboursé ko da nga yaa ngi doon teew rek lu toll ne at waxoo ci defoo ca waxoo ne naqari na la kon mën a wëlbati ko ne daay def wal xaayu aji fàddu nag xalaa shufhatihi nekk na ci dabam wa in taalat ak doon te yàggoon na xaybatuhu tukkeem ba la neexee ne fàddoom nga ki nga xam dafay nekkutoon nag moom ki mu bokkal jaay gannaawam moom saa yu ñëwee rek mën a dab ko jënd daal di koy romb sa njëgg moom lu yàgg yàgg rek noonu la fi nekkutoon moo tax ba tey bu fekkee mi ngi foon waaye yëgut it ba tey noonu la wax wax dëpp chef yi xox day la ñu dab la ne xëy ne gàddug la ñu dab wala nga ne gaaraanteb wàll ga ñu dab xalal mustari war na aji jënd ja daa wax ne nag bu fekkee ne wàll googu ñu jaay te wax ne sañ nga koo dab remboursé ko ku jënd far wàll googu daa far lakk mbaa mu yàqu yow nag nga dem dab ko remboursé koo ka njëg bu noppi dik fekk far loola lakk mbaa mu yàqu mu ne kon day mel ni waa ji jëndoon moo garanté day mel ne kon ngay delluwaat yow njëg gi nga ko jënde woon njëg gi nga ko jëndaate woon ci moom mu remboursé la ko te moom mel ni moom moom la yëfam yàqu mu ne ne kon lu aji jënd ji rek moo ñàkk yi ngeen doon waaye yow day delluwaat sa njëg yow ndax garanti bi ci moom la nekkoon wooqafu def na taxawal ak chafihu aji dab fa ima axafa benn mu jël aw paraka wala mu bàyyi nee na nag boo jëndee loo xam ne nii ki ko moom da koo seq nag keneen jékki-jékki jaay xam ne kooku sañ naa ñëw dab si la ne la yow dama la remboursé te nangu li nga jënd mu ne kon mën nga koo taxawal ne ko ah yow kat xam naa ne am nga boobu sañ-sañ su fekkee ne am na ku la jaay suuf mbaa tabax mbaa garab te fekk mu bokkoon ko keneen nga xam ne kon kookee mu ko bokkaloon sañ naa ñëw dab si yow mi jënd sañ ngaa fekk kookee la sañ a dab si ne ko yow kat jaay nag ma loo xam ne xam naa ne sañ nga koo dab damay bëgg nga wax ma loo ci def bu fekkee da ngay dab baax na bu fekkee da nga may bàyyi moom moom li li ma jënd baax na waaye loo ci def wax ma ko loolu wax ne sañ nga ko ne ko defal mbaa nga bàyyi xam naa ne sañ nga ko booy def defal bu fekkee da ngay bàyyi te ma xam ko wala tuufa bi deful maye ashufatu dab wala tubaaxatu def ko jaay dab gi na xam nga dañ la ko defal mi ak jàpp na la rek kon doo ko sañ a may keneen doo ko sañ a jaay keneen ni ki tey boo bokk nag man kër mbaa tabax mbaa garab ma jaay saa wàll yoon def na la yombaluk nga dem ramb si ki nga ko jaay jëkk moom lépp waaye nag nga fekk keneen ne ko kay ma jaay la nga dabi ko maanaam lii sañ naa koo dabi waaye man yow réer ma njëggu ma ramb si ki ko jënd waaye yow naa la ko jaay yow nga dem dabi kooko naa la jaay àqi dab gi yow nga dem dabi kooko wala naa la ko may maa maa waroon dabi waaye may naa la àqi dab gi loolu lépp dañ ko yaaye àqi dab googu suñoo ko jaay suñoo ko maye da ngay def rek baa nga bàyyi ndax ak jàpp na rek lañ ci jublu watuq sama def na ko séddale bay na surakaay diggante way bokkaale yi bi xadril ansibaay ci kem cër ya nee na bu fekkoon ne ña siq loolu dañoo limu dañoo bari am ci kenn ku jaay ñu daal di fexe ba dab ka ko jëndoon remboursé ko daal jëllu si wàllu kookee kon nee na yéen ñi nga xam ne yéen a seqoon jëmm ji bu fekkee ëppale woon ëppalante woon ngeen ca dikk bu dee kër kee ci ëppale woon kee kee ci ëppale woon kee kon bu ngeen dawee wenn wàll woowee bu dellu si ko bi di ko séddoo it noonu ngeen ci ëppalante xanaa bu fekkoon ne yéen a yam lay wàll yéen ñaa ñu def moom bu ngeen jëlee wàllu kookee remboursé ko ba jëllu si wàll wa ko ne ngeen koy séddoo yam ca waaye bu fekkee ne ëppalante woon ngeen ci wàll ci jëmmi loolee ci moom nga bu ngeen dabee wàllu kenn ku jaayoon ba andi ko it noonu ngeen ci ëpp la noonu noonu ngeen ci ëppalante ba tey noonu ngeen ci ëppalante waatee moom lay misaal yi sara bi kama law kaanat daaru bayna salaasatin li ahadihim an nisfu wa li saani ak tulusu wa li saalisi ak sudusu fa baaxa saaxibu nisfi nasibayhi kon fa inna saaxiba tulusi yaqudu tulusayil mabi wa saaxibu sudusi tulusahu mu daal ñëw nag ci maye wala tatimu du mat hibatun maye wala sadaxatun du jaageenu saraxe wala xubusum du jaageenu xubusle illa bil xiyaasat dara ci làq làq mooy jël rek dafa wax nag buñ la mayee mbaa ñu sarax la mbaa ñu xubusle la li tax mu sotti mooy nga jël ko waaye bu fekkee ne jëloo ko ba kala mayeen mbaa kala saraxan mbaa kala xubusle woon farfaatu mbaa ñu susur ko léegi jeex na lam la may mënatoo koo jëli lam la saraxoon mënatoo koo jëli lam la xubusoo mënatoo koo jëli wa tax mu ne fa in maata ndem faatu na xawla an tuhaa sa njëkk dee fi ko làq an hu jële ci moom fa hiya kon moom miraasun ab doon rek lay doon moom mi maye woon boo yeexee bu jëli wala la may mbaa kala saraxoon mbaa xubusle ba moom mu far faatu mbaa faatu waa dañ ko sisul kon léegi jeex na bu fekkee ne faatu bi la dañ koy doon mu bokk ci miraas ma bu ñëwee ci siisu bi dañ koy boole ci bor ya faye ko illa an yakun rek bu dafa nekk daalika loolee fil maradi ci biir tawat fa daalika kon loolu naafidun aji wéy la mina sulusi ci sulusi ba in kaana dem nekk na li xëyri waadi fi ñeel kurul aji doon lu may nag bi mu lay may daa fekk boobu mu tawat tawati faatu ku tawat tawati faatu ci biir tawat jo bu ci mayee kenn dañ koy jàpp ne dénkaan ko day mel ne ku naan suuf bàyyi ko jox leen ma diw nangam ko defee ñu bàyyi kon bu fekkee ne fat ku tawat tawati faatu ci biir tawat jo bu ci mayee kenn dañ koy jàpp ne dénkaan ko day mel ne ku naan suuf bàyyi ko jox leen ma diw nangam ko defee ñu bàyyi kon bu fekkee ne faatu na ñu seet ab ceeram lim la mayoon bu fekkee xaj na ca ñu jox la ko ci ceer ba ceeru alalam ci kaw nag bokkoo ci ñi ko doon ndax xam nga ne woon boo bokkee ci ñi doon moom kooku du mën a wax ne dama joxal diw nangam moo fi bàyyi ko te fekk kooku di bokk ci ñi ko doon ki doon wàll ma ko yàlla jox rek ci la yem kon nag bu fekkee bokkoo ci way doon yi te kii ba muy fa ba muy tawat tawat faatu mu mayen la dañuy bàyyi rek bu fekkee faatu nañu seet wu toll noonu jox la ko ca ceeru alalam wal hibatu maye li silati rahimi lu jokk bokk aw li faqir wala ñeel aji ñàkk te sadaqati mi ngi mel ni saraxe laaru jooxa deetu dellu fii xaadi nekk ci moom nee na su fekkee da ngaa may koo xam ne la la nga seet ba may ko mooy bokk ngeen amu bokk bokk ngeen bokk wala la tax nga may ko mooy da ngaa gis ne ku néew doole la ku ñàkk la léegi kon loolu moom bëgg la may la waaye sarax da cee laalaale amul tax na kon doo ko sañ a nangu boo ko see may moom jeex na doo ko sañ a nanguwate ak may la waaye doo ko mën a nangoote wa man tasaddaqa ku saraxi xalaa wala di ci doomam falaa rujoo deetu dellu la fa di ko ñeel nee na sarax nag moom ngir yàlla tax ñu koy joxe kon sa doom sax bu fekkee moom nga sarax doo mën wala di ko nangu la nga ko saraxoon ndax yàlla yàlla tax nga joxe ko sarax la bokkut ak maye wala foo ñeel na ko ay yaa tasira bu nangu maa la nga xam ne waxe bu may na ko li wala di ñeel doomam ak sax yu jee aji ndawe amul kabir wala sax doom du mag ja maalam yum kax li feek mayeefu ko soxna li zaalika ngir loolee aw yu daayan wala deefu ko lebal ngir loolu aw yux dif wala mu sos fil xibati ca may ga xadafan ak sos nee na loo may sa doom rek moo xam doom ji gone la moo xam doom ji mag la mën ngaa wëlbati ko rek nangu ko lu may nag ba nga ko mayee dafa tax ñu may ko soxna ngir may giñ ko may wala liñ ko may daa tax am ko lebal wuu ko lebal ko ndax liñ ko may mbaa la nga ko mayoon mu amoon ca defaraat defaraat boo xam ne sopp na loolu lool ba wuteeg ba na mel ba nga ko mayoon waaw kooku moom nee na doo ko mën a nangoote wal ummu ndey tentasiru dana nangu maadaama li fekk sax na al abu bàyyi xayan di aju dund fa iza maata ndem faatu na moom bàyyi lam tentasir kon lu sañ a nangooti moom ndey nee na yaay ba tey lam may doom ja li fekk bàyyi kookaa ngay dund li fekk bàyyi doom jaa ngay dund moom yaay ji lam may doom ja mën na koo nangu waaye su bàyyi wa xasee faatu nag moom yaay ji bam nangooti ndax wala wax tasaru deful nangu min yetti min ci ab jirim te wal wut ma am jirim am jirim min xewal ab mi ngi tukkee ci wàllu bàyyi nee su bàyyi bu xale bu faatoo kon yaay ji lam xas may doom ji mu ko nangu ndax ne nga bàyyi bu faatu rek xale ba daal di nekk jirim ndax jirim mooy koo xam ne jirim mooy koo xam ne bàyyi daa faatu te toll fi wut ne yaay bu faatu moom taxu koo doon jirim wala loo xam ne waxe boo may na ko lépp ni xii ñeel doom ak saxiir ji aji ndawe fa xiyaasatu ak làqalam loxoo ñeel ko jaay sat aji dagan la idaa lam yaskun dem dëkkewut daalika loolee aw yel bas wala mu ko sol in kaana dem nekk na faw ba ndimalaan nee na loo may sa doom yu ndaw sañ nga ko ko dencal ngay sàkk ay seere ne lii may naa ko ko te maa ngi ko koy dencal waaye nag bu dee kër doo ko dëkkee bu dee yére doo ko sol ko dencal te sax koy seede waaye namaa yow gis naka dana dagal it la ko ñal ko maa loo xam ne ñu arafu def na ko xam bu xëy di ci jëmmam ba tey la ñu nangu nga may ko sa doom ñu ndaw te dencal ko ko day nekk loo xam dañ koy mën a xam mu ràññee ko nit ki bu dee fas ñu xam ne fas sàngam la bu dee nag ñu xam nag sàngam la bu dee kër ñu xam ne kër sàngam la waaye may naa ko kër ci saa kër yi mbaa may naa ko fas ci saa fas yi rek loolu dong yem ci ba tey loolu du baax te ayoo moom la ñu xam la ñu ràññeel wala fu nga daal di ko wëlbatiku dama sax bu fekkoon na nga ne may naa ko nangami dërëm mbaa nangam ci wurus wëlbatiku daal koy dénk keneen te loolu ba tey baax na kaste ko kaste boo xam ne nga xam ne dërëm bi la mbaa wurus bi la daa koy dénk keneen ba tey loolu baax na waaye soo ne may naa ko nangam ci xaalis te te loolee jëfu ko jëfu ko ab jaamur mu téyel ko xanaa yow nga téye ko noonu rek nga far faatu am ba sir am kon loolu la du ca mën a jotati wa amal kabiru daal mag fala tëjoo suñu dagan xiyaasatuhu ak làqalam ak dencalam la wëññal ko sa doom du mag nag moom boo ko mayee xam ne moom mën naa wéyeeg boppam na nga ko jox rek mu yóbbu waaye dagam moom moom jëmm la te mën naa wéyeeg boppam la nga ko may bu fekkee ne joxoo ko ku yóbbu xanaa téye ko rek kon may nga day yàqu maanaam bu suñu faatu amee wala sisir am rek may nga fa may nga yàqu wala yarjihu du dellu arrajulu waaja fii sadaqatihi ci saraxam neen nag boo xasee saraxe ba noppi doo ci sañ a dellu nanguwaat ko nanguwaat la nga saraxe woon ëpp naa def dañ ko yem dañ ko yem rooleeg wàcc ba noppi wëlbatiku lekkaat ko wala tarjihu du dellu ilay jëm ci moom ilaa bil miraasi mara ci doon nee loo ko saraxee lay tax mu ñëwaat ci yow mooy doon rek ne ki kam ko saraxoon ñu koy miraas loolu bokkaat ci sa wàll wala ba sa awit an yashroba mu naan min labani ma ci sowam la nga xam ne te saddaqa saraxe na bi ci moom nga saraxe lu mel ne ab gàtt wala nag wala gëleem te muy jigéen loolu bëtigu nag naan ca soow ma nag loolu la wax ne ayut waaye wax ne ni sax bañ ngaa defa gën wala mu ne ayut sax xam ne bañ ngaa defa gën wala yestawi bu jënd maa la nga xam ne tasaddaqa saraxe na bi ci moom loo ko saraxe bañ ko dee jaay bul ko jënd li la waxoon rek day ñëwaat ci yow daal na nekk ci anam ak doon wal moo xoobu ku ñu may lil xewal de ngir ak wott imma afaaba benn mu yoole alxiimata xayma ja aw radd wala mu delloo alxibata jëmi may ga neen bu la kenn mayee may boo xam ne xam ne ne ngir yàlla taxut defal la njëkk taxut dafa bëgg rek bu la mayee lii am loo ko jox ni ko ni ko ñeeño yi defe fii ci xew yeeg yooyu loolu la wax ne moom boo tëye lam la mayoon rek moom daal di wéy benn nga seet xayma loolu nga jox ko ko mbaa bu fekkee jëmmi lam la may ma nga fa nga delloo ko jëmm ji ba tey ne nga xam nga ne moom dara tax mu la ko jox te mënoo ko joteewal dara delloo ko jëmm ja bu la neexee itam nga tëye jëmmi lam la mayoon seet la loo jëmm loola nga jox ko jëmm loola képp yem ca fa in faatan ndéem faat na ndéem raw na fa xale kon war na ko xiimatuxaa xaymaam maanaam bu fekkee lam la joxoon xas na raw nag kon léegi dara desul lu may seet xayma yi loola may seet jëmm loolu la ci yàlla nga jox ko ko ndax jëmm ji nekkatu fi ba nga mën a delloo jëmm ja wa zaalika loolee nag iza kaana mooy dem nekk na yu daa dee fi gis ne ànd foo naka moom araada namm na ak sawaaba ab yool mu ne moo foofu ca kañu may la wëññeel ko maanaam bu fekkee ne firnde wane na ne moom joxewul ngir yàlla wala njëkk dafa joxe ngir am lu bëgg ci kii may kooku jox ko ko waaw suba waa nag lañu aate aate boobu wa yukrahu def na sib ay wexe doom mooy li bax di wala di ñeel leen ci ay doomam maa lahu alalam kullahu léppam maanaam nag sa jenn doom mbaa ñenn ci sa doom nga jékki-jékki mooy leen sa alal yëpp bàyyi ci des waaw loolu daa wax ne sib nañ ko wa ama shay'un daal dara mu ci alal ja fa zalika loolee saa yoxoon aju dagan la maanaam nga jël ci lenn ci alal ja may kenn rek waaye mayoo ko lépp ndax li waxal léegi mooy nga jël sa alal jëpp may ko ñenn ci say doom mbaa kenn ci say doom bàyyi ñu ci des mu ne waaye nga jël ci lenn rek ci alal ja may kenn bàyyi ñu ci des moom dagan na loolu nag bu dee ñenn ñi sax dañ koy aaye ndax lu addis waxoon ne na ngeen ragal yàlla ittaqullaha wa'dilu fi awlaadikum loolu tax na ñenn ñi moom dañoo xam doo sañ a may dara sa doom ji bàyyi kële te mayoo kële faaw danga la war a yemale wala ba sa awit an yatasaddaqa mu saraxe xalal fuqaraa yi ci way ñàkk ñi bi maalihi ci alalam kullihi léppam lillaahi ngir yàlla ne bu la neexee na nga ne sa alal yëpp jox naa ko ñu ne boole ngir yàlla wala xaaj bi mbaa la ci ëpp lu ci neex rek nga jékki-jékki jël lépp saraxe ko wala nga jékki-jékki jëf ko ci yoonu yàlla wala may xoolee ku may xibatan ak maye fa la may xos xaati làqu ko làqu ko mooy jëlee ko rek al may xoobu kañu may loxo ñeel ko xataa marida ba tawat al waaxibu aji maye ja aw aflasa wala mu sisiru fa lay sa loxo kon di déddi ko ñeel xii nay sin ci waxtu woowee xam du faa ak ngëwam nee na bu la kenn mayoon dara nga yeex ko jëli nag ba moom moomee la mayoon far tawat tawati faatu mbaa ñu koy sisir kon nee na may ko yàq na yooyu jam yooyu jam yooyu jamono mënatoo jëli lam lam la mayoon walaw maata doonte faatu woon na almawfuu bu ko ñu may loxo ñëw ko kaana kon nekk lu war fatihu li ñeloo doonam war fatihu li ñeloo doonam ak xiwaaw mu taxaw ga fii xaa ca may ga xalal waaxidu ci aji maye ja ak saxiihu ja aji wér dafa wax ne bu fekkoon ne moom mi nga xam ne moo maye moom dara bëgg ko faatu wut si surañ ko kam mayoon ci boppam rek mooy xajal si may gi ba kooka ba ba ba faatu moom kookee ñu mayoon kookee ñu mayoon nee na kon may may gi mën naa may yàqu ña ko war a doon mel ni doomam mbaa bàyyam mbaa kenn ci way doon mën naa ñu jël si may gi ndegam ki maye dara bëgg ko moom mayoon rek mooy xajal si ba far faatu na ko kon may gi mën naa bañ a yàqu mën nañoo jël si may gi ci ki ki mayoon ne ko yow kat sunu waa ji nga mayoon daa dafay génn àdduna waaye loolu la ñuy jël si wa man xabasa ko xubus le daaran kër fa hiya moom kër ga xalaama nekk na ci la nga xam ne jaxalaxaa def na ko xalihi ca moom in xiisat ndem làqeef na ko muy dem jëleef na ko xam la moo di xiit njëkk ak faatam des na ko wax xubus le daañu ko wax waqaf le maanaam moo génn ci sa moomeel yóbbu ci moomeelu yàlla mën nga caa boole nag wax na nga bëgg ñu doxale ko na moom nag fonk nañ ko lool ndax da doon njëriñ la fay nekkal boo génnee àdduna moo tax saxaaba yi defoon nañ ko ñu ci bari bari ci ñoom ak nit ñu baax ñi yu mel ne tey rek nga wax ne kër gee xobuse naa ko mbaa waqaf naa ko nañ ko def daara wala nañ ko def kërug wooy néew ñu doole wala nga jënd oto wax ne oto bi bàyyi naa ko fi ndax wàññi ko bu ñu yóbbu Tuubaa ñu yóbbu la ci mbaa nga bindu kaamil yóbbu ca bayti mbaa feneen ne kaamil bi lañ ci jàng loolu lépp daal xobus la xam ne génnañ ko ci seen moomeel yow bi ci moomeel yàlla wax na nga bëgg ñu ko ñu doxale bu fekkee waxoon na nga bëgg it yoon moom mën naa seet nañ koy doxale loolu mooy xobus li boo ko defee kër nag la wax ne sart yi nga ci joxe rek moom la ñuy topp ñoo ko bëggee rek waaye nag ñu war a jël kër gi nañ ko jël njëkk faatu yi am baa sisir ndax nañ la woon muy maye muy xobus la muy saraxle muy saraxe moom jëm ci ñoom bu ñu ko waxee jël si ba moom ma ko xobus la woon ci misaal mbaa ko saraxaw mbaa ko mayoon faatu mbaa ñu siir ko rek loolu la yàqu toog kon na ko ñu jël si njëkk balaa gàllankooram walaw kaana donte nekkoon xobusan di xobus li xalaa wala di ci doomu ak soxiri ji aja ndawe jaasat kon dagan xiyaasat fo ak làqalam loxo ñeel ko ilaan yóbbu loxo boobu muy kàllafe nee na boo ne woon sax saa kër bi daa koo xobus li saa doom ji te fekk doom jee ndaw kon nee na mën nga ko ko téyel sax ba ba mu nekk mu kàllaf mën caa dëkk kon mukriha na ko nuyeel lu foo ñeel ko wala was ko naxaat lu ko dëkkee mun waaye su boobaa nag danga ko nuyeel te bañ koo dëkkee yi sa bopp fay lam la daa ndeem bàyyiwut sukkanaaxa ak dëkkeem xataa maata ba mu faatu batalat kon mu yàqu bu fekkee dana fa gis la naa saa kër gi ci saa doom yi daw ji waaye nag tey ma nga dëkkee kër ga far ba faatu dikk mbaa si sul dikk su boobaa doom ja ñàkk na kër ga xam gis la yàqu na bu faatu amee dañ koy dañ koy miraas donn ko bu fekkee ne sisir am nañ koy def ci bari wa inan xaraba ndéem fër na fër mooy dee ba jeex man na nga xam ne xob bi set xobus lee foon kër ga xale ci ñoom man daal maanaam mbooloo moo tax la neexee rek ne man ka nga xam ne xob bi set xobus lee foon kër ga xale ci moom rajaxat kon mu dellu moom kër ga xobusan dik xobus le xalaa aqrabu naas ci gën jaajëlee nit ñi bala mu xàbbi si ci aju xobus la ja yow man mar jeexi ci bisub dellu si ma léegi su fekkee da ngaa waxoon ni kër gi du laa ko xubus le la lay xëy moog ay sëtam mbaa moog ay doomam léegi nag ñu dem ñoom dee ba jeex waaye dee na ay sëtam mbaa ay doomam dem nañ ba jeex kon nee na kat bu fàtte ne xubus le moom du ñëwaat ci sa moomeel. kon ndegam yow nekkoo fi dañuy seet kan moo la gën a jege ci say jege ñaale rek mu ne ko xubus le ca kooka. ñu ne diw ñu ne kooka kon lañ ko xubus le bu dee kenn baax na bu dee ab limitam baax na ñoom ñoo jël kër ga mu ne xobus la ci ñoom waaye yow la yàgg-yàgg loo xas xobus la dina wàcc sa moomeel mukk wa man amara ku waral rajulan waay xayaataxoo diir dundam daaram kër rajaxat kon mu dellu moom kër ga wax dama wuti saaki ni ci gannaaw deexuk ayu dëkke ja milkam dig moomeel li rabbi xaañal boromam loolu alxumra moom daanañ ko def maanaam yaralal kenn kër mooy nga ne diw kër gi may naa la nga dëkki ko li fay yaa ngi dund rek may naa la nga dëkki ko xam ne ma yëg ko mooy booy li fay muy dund rek mën na koo dëkki loolu mooy xumra loolu nee na moom leer na bis bu koo ko faatoo rek kër gi ñëwaat ci sa moomeel mooy bis bu koo ko faatoo rek ak dundam jeex na kon nga ñëpp mu ñëwaat ci sa moomeel wa kasaalika naka noonu in amara ndeem waral na xaqibahu sëtam ya fan xarabo te ñu fër mooy te ñu deewu jeex ba tey boo ne woon sëti diw sët yooyu nag léegi dem ba jeex mbaa nga ne diwoo ki sëtam ñoom ñëpp ñu dem ba jeex waaye yaral rek nga waxoon waroon xumus le kon ba tey ñoom ñëpp buñ dee ba jeex rek kër ga ñu wàcc sag moomeel ndax seen seen biir dund nga waxoon te seen dund jeex na bu xilaafin xubus ci wutee xubus le xubus le nag moom boo ko fàtte lu yàgg yàgg moom bu ñu wàcc sag moomeel li ñu ko waxee woon mooy ba ñooñu demoon ba jeex dañuy seet la gën a jege moom mu nekk ak xubus la ca moom maanaam kala mën a jege jël ko mu nekk xubus la ca moom waaye yow dina si waat ci yow fa in maata dem faatu na al mu'minu aj yarale ja yow ma ifin ci bis boobee kaanat kon nekk kaanat kon mu nekk moom kër ga mel kan dig moomeel lu war a sotti yi ñeel way doonam yow moo tixi ci bisub faatoom nga nee na su fekkoon ne ña waxoon ne seen juri dund kër gi jox naa leen ko ngeen dëkk ci dañoo dem ba jeex fekk na moom itam faraw fekk na ko génn àdduna ba yooyu jamono fekkoo fa bu fi nekkoon kër gi ci moom lay dellu si ma woon kër gi te yar la woon ko waaye yàlla def na moom fekk na mu génn àdduna kon donoom ki bu fekkee bàyyi bu fa nekk mbaa doom bu fa nekk mbaa sëtam ñu kër gi ci ñoom lay dellu si ndax ki ma woon kër gi bu nekkoon kër gi dellu si ci moom tey nag kooku nekk moom waman maata ku faatu man ahlil xubusi ci ñuñ xubus le fa nasibu ko wàllam xalaa ma nekk na ci ñi nga xam ne mbaqee des nañ nee na boo nee kër gii xubus la naa ko doomi diw ràññeel leen ni doomi diw waaye nag tegalewoo leen na kii jiitu ba kii jiitu da nga ne rek ñoom ñëpp nga ko xubus le kon nee na kon ñoom ñëpp ñoo ci yemoo rek bu fekkee ne kenn faat na ci itam ñu sees rek ñooy seddu wàllam ñooy jëlaali wàllam bu fekkee ne kenn faat na ci ñoom ñooñu rek ñu fa des ñooy jëlaali wàllam loolu sori def na ëffal ëffal mooy yaatal fil xubus ci xubus le amul xaajati ñooñ aajo bi sukk naa ca dëkk ga wala xaalati am wàll la nee na bu fekkee ña moom xubus la ga mooy ña ko war a jëriñoo dañ ca appante ak loru ñenn ña ñoo gën loru ñenn ña kon nee na bu dee dëkk mu des naa seet ko gën loru jox ko ci la ëpp ci nekk mu dëkkee bu dee dañuy séddoo wàll la di ko ñu koy liyaas rek di séddoo liyaas wa itam mu des naa seet ko gën a loru ñu koy jox la ëpp loolu dara nekku ca wa man sakkana koo xam ne xas na dëkk falaa wax ruju du génnati li xëyri fi ngir kur moom nee na nag bu fekkee dangaa xubus li kër gi ngir yàlla rek a tax bu kii way ñàkk ñu ngi wax kon ku ñëw doole bu dikkee wa dëkk doo ko génn ngir keneen mais keneen du ñoo tax nga ne ko dangay génn keewu mu dugg déedéet ilaa an yokkoon rek dafa nekk fi asli xubusi cosaanu xubus li nga chartul ab sart fayam di kon dana wéy lu may dangaa sartoon ne ah ñoom ñi kat dama ko defal ngir ñu ñëw doole taal bi ñëw doole ci misaal bu ndikkee nekk ci waaye nag léebee de moom boo ci xam ne nekk nga ci itam bu saa mbokk dikkee bàyyi ko sama dëkkub cosaan na mel ne bu nit bàyyi ko Louga bàyyi ko Kajoor su dikkee da nga génn moom mu dugg kon sartoon na ko jekk loolu kon loolu mooy wéy walaa yu baa nga deful jaay alxubusu xubus le wa in xariba ak doonte ràppoon na waaw loo xas ko mos leen mooy li nga génne ci sag moom lépp ci moomu yàlla kooku lu yàgg yàlla su ko jaay dañ koy jariñoo rek waaye lu su ko jaay ak lu mu ràpp ràpp loolu baaxul def na jaay alfaras aw fas alxubus wati xubus le yàq la bu mbir moom dafa kalab kalab jàngoro la joo xam daa xaw ma doon tooku ndof mu dalee fas wi dama ne fas yi dafa dof nee nag fas woon xubus le ci yoonu yàlla ni ki fas woon joxe woon ci ndax mu xare ci yoonu yàlla far kala boobu dal ko mu ne kon des na ko jaay waaye bu ñu ko jaayee duñ séddoo njëgg mais woo ci xam def na def famanu foo njëgam fii mus li ci moromam daw ñu xaan wala defi dimbali ko bi ñu ci njëgg fii ci moromam dañ fas woon joxe woon ci jihaar te jàngoon dal ko ba mënta jihaar dañ koy jaay te dañ ko jaayee bu fekkee njëgg mënees na caa yeneen fas kon jënd ci yeneen fas su fekkee mëf lu njëggu fas waaye mënees na caa dool leneen lu joxe woon ci misaal ci lu jëm ci boobu yàlla ñu far ko boole njëgu fas yu jëndaat yenn fas ba tey defaataat ci yoonu yàlla bu fekkee mënta amaat fas ñu far ko jëndi ngànnaay yi ba tey jox ñu xeex ñu xeex ko ci yoonu yàlla waxtu bi fa yeteef na film muhaawadati ci wettante ga bi rab yi ci kër alxarab bi buy aji ràpp bi rab yi ci kër xëyri xarab bi ngoog bu aji ràpp maanaam wete nañ ci bu fekkee dañ leen a xubus la woon ci misaal ak kër kër ga dem ba ràpp nag am kenn ku ñu ko nangoo weccee kër goo xam ne rapput nit ki koo xam ne yàlla defal na ko wërsëg pàkk bi jaral na ko mu jox leen kër bu baax da ngeen jox ko kër bu ràpp gi ndax su boobaa loolu sañees na ko wala sañeesu ko ñee nee ñu sañeesu ko ndax ak jaay dong la ñeen ñee sañees na ko ndax am na wute kon wute boobu mën ngaa jàpp wax ji gën a wóor rek mooy dañ koy aaye wal moo tababu wal moo tababu al manu moo gën a wóor rahnu tayle jaay sun aji dagan la tayle mooy ngay leb kenn jox ko loo xam da koy téye ngir buñ ci àggee te fayu ko te war koo jaay yoon daal di koy jaay fay ko ca bu desee mu delloo la ko mu njëgg bu desee ñu delloo la ko waaw li ko wala fi defee léeg-léeg nag nga xam na ngay dem rek jëkkër yi daal dem leb tey la fa loo xam ne lu foor lay doon te boo demee ci waroo koo fay rek mu far ko téye benn yoon da koy fayoo daal mu daal ne fayoo naa ko man tey la ga daa wel loolu yoon da koy aaye loolu des ko def tey la gi li mu jaay rek mooy da koy sukkandikoo ba buñ ci àggee te fayuñu ko te ñu war a jaay loolu ñu jaay ko rek mu fayu ci borom waaye la des dañ koy delloo borom kon tey la dagan na walaa yetimu du mat illaa bil xiyaasat dara ci làq làq mooy jël naa bala kenn ne lebal ma fukki junni mu tayal la montar bi da ngay fexe ba jël montar boole ci loolu mooy tax mu ne mu tay ne waaye bu fekkee jëloo montar ba yàlla dogal fara ñu koy siisir nga wax naa lebaloon naa ko fukki junni tay la mu tay la woon montar waaye jot la woon a jox montar bi day mel ne kon taylewu la ndax di ko jëloo ko woon rek tayle gi du sotti yaa borom boor yëpp yam rek wala tan fa bu jëriñ ash-shahadatu seere sa fi xiyaasatihi ci làqam illaa bi muhaayanatil bayyinati dara ci jàkkaarloog seere sa nee na itam bu fekkee na nga ne am ngay seere itam seere yi dañu mën a seere ne jàkkaarloo woon nañu ak yow ngay jël lii ma la tayle nattawle wuñ ko nga xam ne bu dee lu mën a jël fa mu ko yóbbu toxal bu dee loo xam ne su ko toxal mel ni kër ñu wóor na joxal ma la caabi yi nga téye ni la bu dee oto itam mel na joxal ma la caabi yi ne la oto baa ngi ni ma tayle nga xam ne moom daal jël gu wóor nga ko jël ñoom ñu seere ko teg ci seen bët ñoom seere itam ñu taxaw seere loolu loolu nag su amee kon loolu wér na wa damaanu rahni gàdduk tayle ga minal murtahini tukkee na ca aji tayle woo ja fii maa ca la nga xam ne waxaa bu def na woon a fàddu mooy def na mën a njublan xale yi ci moom murtahin mooy ki nga xam ne mooy leble yëfam ba am lañ ko jox ar rahin nag mooy ki jëkk di ba nga xam ne moom daa ñëw di leb day joxe yëfam kon ar rahin ak al murtahin wute nañu ar rahin mooy ki ki jëkk di bay leb amul muy tayle al murtahin nag mooy kay leble am lañ ko jox mu téye léegi yow mi lay li am lu la jox nga téye nag loolu ñu la jox nga téye mu di tayle bu fekkee lu yoon njut lang la di lay mais ne bu dee ab jaaro jaaro wurus wala jaaro xaalis wala montor mooy mboolem xeet yi mën a sàkkal pexe di lay bu la borom fay seen bu lépp ne la jox ma laal tayle woon ngay sàkk aw lay naa ko nangam ak nangam dañuy jàpp ne da ngay njut lang rek waaw da nga ko daal di fay da ko daal di fay loolee mu la mu la tayle woon te nga nekk di ko lay naa ko nangam ak nangam waaye yëpp moom di war lu maa loo xam ne laa waxaa bu deful mën a fàddu xale ci moom xanaa bu fekkee la nga ko tayle woon nag moom ñëf te njublan ni kii ak jur ak jur moom ah dëgg la sax njublan gi bari na ma des na ko njublan waaye daal ñëf te njublan moom ma ne aw fas wala aw na wala yooyu kooku moom buñ ca gisul fan wu leer fan wu leer nañ ñu ne moom da caa njublan rek bu ne daa dee te ma des na ko moom dañuy jàpp ne kon wax na dëgg daa dee rek te bu tey nga fay ko lim la yowoon te nga ñàkk sa fas woon ko tayle woon bu ñu gisee ne ñaarut nag topp ko ci yoon woppam retum nax li meññatum tàndal ma ya roxi ni ma dik tayle li raaxi ni ñeel na aji tayle ja maanaam boo nee tayle nit ay garab yoo xam day meññi léegi dañuy jàpp ne garab yi dong nga ko tayle waaye meññan moom ba tey bu la neexee waaxu sàkk ko waaw bu la neexee waaxu sàkk meññan bi loolu mat naa leeral boo ko tayle woon te ay tàndal ma muy ay garab fekk mu meññi dañuy jàpp ne léegi jëmmi taabu rek nga ko tayle waaye jëmmi meññeet moom bu la neexee wax ko sàkk wa kazaalika naka noonu xallatu béeri njëriñal kër ya maanaam boo ko tayle woon kër goo xam ne dafay luyaas dañuy jàpp ne luyaas bi moom ba léegi yaa ko moom yow borom kër gi kër gi rek nga ko tayle fekkee fayoo ko nag kër gi la ñuy jaay waaye luyaas moom ba léegi yaa koy fayu wala wala du doom ja rëxman ak tayle la maxal amati ànd ak jébbeel ba ak rëxni ba di tayle tayle bi foofu mbir moom da koo jur ba xadar rëxni ci gannaaw tayle nga nee na jamonoy jaam amee bu fekkee da ngaa tawle jaam bu jigéen ba mu demee far mu jur fa mu far am doon fa nga ko tawle woon dañuy jàpp ne kon ndey jël doom yépp ak tawle la xam ne bu yàlla dogalee fayoo ko bu ñu xasee bay jaay yaar yépp lay jaay ndax fayu ca yaar yépp lay sañ a jaay wala yokkoon bu nekk maalul xab di alali jaam rex nañ di tawle illaa bi shortin dawam ànd ko sart maanaam bu la nit dee tawle ab jaam ci jamonoy jaam amee bu bëggee alal ja bokk ci da nga koy leeral ne ko man kat bu jaam bi rek nga may tayli waaye alalam ci la bokk ba mu nangu mu leer waaye bu fekkee waxaale woo loolu ba mu leer day jàpp ne jaam bi kese la la tayle alal jaam moom bokk ci mën na ko waaxu nangu wama loo xam ne xalaka alkuna bi yedi aminin ci loxo ku ñu wóolu fa huwa moom min arrahini tukki na ci aji tayle ja maanaam boo ñëwee di ko leb si ne ko mën naa laa tayle montar bi waaye dama laa wóolu ci nga yore ko mu ne la xanaa wóolu nga diw nga ne ko waaw xam ne kon yéen ñaar yéen a bokk ñu ne woonu moom lebal lam lay lebal ngeen jël montor bi dem tayle ko ngeen jël montor bi nga ko tayle dénk ko keneen koo xam ne bokk ngeen ko wóolu kooku nag wax ne montor bu sàcc nañ ko maaroot na waaw su boobaa dañuy jàpp ne kooku wax na dëgg ndax wóolu woon ngeen ko da wóolu woon ngeen ko li nekkoon li ngeen yaakaar ci moom la jàpp nañ ci yoon ba tey ne wóolu ne moom daa rot mbaa daa réer nga xam ne war ngaa fay war ngaa fay bari ba noppi nag ñàkk sa montor waaw ndax ki ki nga lewoon moom moom woo koon ba di ko jox montor bi bi nga koy tayle na nga woo koon a jox waaye nga seetoon ngeen doon yooyu ñaar ngeen jox ko ko kon nag da nga kooku ne wat na mbaa la da nga ñàkk montor ba noppi rek xam nga ne borom moom bu tee nga fay ko wala riyatu abbu mu abbeetu la ñuy delloo la day ñëw ci abbu abbu nee na sopp nañ ko maanaam bu la abbee luñ mën a able kooku jariñ ci dellu si la loolu taam nañ ko loolu nga abal kooku ngir yàlla waaye nag bu la abale kooku war na koo dellu si ku ñu abal ku ne war ngaa dellu si lañ la abaloon yóbbu na dana warul maa lépp loo xam ne yooxaa bu def na mën a fàddu xale ci moom wala yóbbu na te du warul maa loo xam ne laa yooxaa bu def na mën a fàddu xale ci moom wax suñ ko mën a abalee loolu mu jubloon ñëw di lay bu layee rek ñu ne ko fayal loolu ñu firnde bu wér ju xam ne ju xam ne njubloonu ja waaye buñ ci gisul loolu rek ne ko fayal bu fekkee rek loo xam ne waxtu njubloon nag moom ah su ne nangam rek ñëppam la wax xam ne yàlla dugal loola da ko alban yàlla di def coobareem ba ay moom ba tey buñ ci gisee lu jar topp topp ko waaw ndax li njubloonu daa bari lu mënta njubloon nag ci lu woon bu ma lay misaali man xam din ci jaam aw daa bët ñu wala daawa boo ko aboonu jaam ci jamonoy jaam amee mu ne ko mu la liggéeyal mbaa nga bon ko daaba ni ko fas mbaa yooyu loolu daal ñu waxtu njublan du tee nag buñ ci gisee lu jar topp nag caa njublan dal koy dal lay topp boobam ci la ñoo tax at daan dara dafa jàggati jàggati mooy wees fa nga war a yem maanaam bu dee boo ko abbee def ci lépp ni ki nga aboon ko daaba war caa sëf nga sëf ci ñaar tool daaba ji war a sëf fa daaba ji daanu kooku xam nga da ngay jàggati da ngay wees fa nga war a yem su boobaa kon moom da ngay fay wal moo dox ku ñu dénk in xaala ndem wax na ne raddatu delloo naa alwadixata ndénkaan la ileeka jëme ci yow suddi xakum dëggalaleef ko maanaam nag ko wóolu bu dénk ko dañuy jàpp ne li nga ko wóolu rek moo nekk ci moom boo ko laajoon dénkaan la mën la joxoon naa la ko yoon day jàpp ne wax na dëgg joxoon na la ko yow yaa ko fàtti mbaa leen waaye moom kenn ko topp dañuy jàpp ne wax na dëgg ndax yaa ko wóolu woon boo dénk ko illaa an yakkoon ndere ba dafa nekk xabadaxaa di ko ma dowoon bi ishaadin ànd ak séeraloo lu may kay ba nga koy dénk da ngaa sàkk séere séere sa séere ne yaa ngi koy dénk lii moom na mu ne joxaat na la ko te waxaatul séere su boobaa na nga am dëgg da nga wax ne ko baalee dénk kat da nga amatoon séere su séere ne maa ngi lay dénk kon nag boo ne delloo naa la te amoo séere ah loolu doo ko mën a jàpp su boobaa loolu la ñu àndal ñu la wax nga dëgg wa in xaaral li wax na ne zahabat dénkaan la dem na foofu kon moom mustadaqun kon mu dëggalal la bu ko lixaayi ci mat mbir maanaam bu ñu la joxaat na la ko daa wax ne dañ koo sàcc mbaa mu ne daa réer dañuy jàpp wax na dëgg rek ndax nag mu ngi ko wóolu ba dénk ko lu ngi ko wóolu rek la ñuy jàpp wal xaarijatu àbb nag moom laa yu saddaxu def ko dëgg loolu fii xalaaki xii ci alkoom nga fii maa ci la nga xam ne yuuxaa bu def na mën a jublan xale ci moom loolu ak baamu la da wax ne bu doon àbb nag moom mu ne mu ne la ma amaloon kat dañ koo sàcc mbaa daa réer mbaa nangam te mu fekk moom mën a jublan dañ koy fayloo rek dañ koy wax ne ko fayal rek waman taxaddaa ku jalgati xalaawa di xat ci ndénkaan bame na xaar mu gàmb ko nee na nag buñ la dénkee da ngaa war a góorgóorlu sàmm ko ba delloo ko borom buñ la dénkee nag nga far jàdd ba def ca lu ci jàdduwut ni kii dénk la nga dénkaat ko keneen te lu ngànt su boobaa lu ci xew rek da ngaa war a fay borom ndax loolu jàggat jàggat ndénkaan nga xamoon ni mu la wóolu wóolu na ko keneen am déet kon nag boo sañ rek mu dénk la nga dem dénkaaniwaat te amul loolu amul dara wa in kaanat ndem nekk na moom dénkaan la dana niira di ay dinaar faraddahaa te mu delloo leen fii surratihaa ci seen mbuus wala ci seen kambukaay suma xalaka topp ñeel ko fa xad ixtalifa kon wuteef na fii tadminihi ci warlu loon maanaam bu fekkee da nga koo dénkoon lu mel ni wurus baa xaalis def ko ci mbuus léegi nag moom sàkko fajoon na ci soxlaam sax bàggal waaye waññiwaat na lim bu toll noonu defaat ci mbuus maati gannaaw nag lay xew-xew ca nit ñi sàcc ko mbaam rot am nañu ne kon dara waru ko ci ndax dëgg la sax njëkkoon na cee faj soxla waaye delewaat lu toll noonu yàlla def li rek te mel ne ne jooju wax moo gën a war nee nañu ne wéedeet dañoo xasan na ca faj soxla rek moom ak moom ci mën doon rek bu ci loolu xewee dana fay waaye daal say ba jàpp wax ji gën a wóor mooy moom daal dëggam wàññiwaatoon lu toll noonu delloo ca mbuus mu teg fee yàlla ñëw rek loolu kenn du ko ca fayal dara wa man ittajara ku yaxantu bu wadi hatin ci ndenkaan fa daalika loolu makruuhu lu ñu sif la soxla waaye delluwaat lu toll noonu yàlla def li rek te mel ne ne jooju wax moo gën a wóor ñaan ñu ne wéedeet ndegam xasan na ca faj soxla rek moom ak moom ci mën doon rek bu ci loolu xewee dana fay waaye daal sooy ba jàpp wax ji gën a wóor mooy moom daal ndegam wàññiwaatoon lu toll noonu delloo ca mbuus ma teg fee yàlla ñëw rek loolu kenn du ko ca fayloo dara wa man ittajara ku yaxantu bi wadihatin ci ndenkaan fa daalika loolu makruuhu lu nisif la daa wax ne nag buñ la dénkee mais wurus wala xaalis nga dem di ci jaayee ko jëndantu bëgg ci am bénéfice dañuy seet bu fekkee ne yow ku mën sa bopp nga xam ne loolee ñu la dénk te nga di ca commerce tey boo ci jëndoon forot ñu nangu ko it yow am nga sa alal li bopp joo mën a fay borom su boobaa li nga def sib dong sib dong lay doon waaye bu yàlla dogalee yow jëkkoo sa bopp yaa ngi jël alal li jàmbur jëm la dénk di ci jéem a yaxantu waaye tey jii bu ñu ko nangu woon borom day ñàkk rek ndax yow amoo loo ko fayee su boobaa araam lay def moom di yem rek ci sib araam lay def te la waree fa bénéfice ba loxo ñeel na ko inkaanat dem nekk na xëy na ndikee lam la dénk bu fekkee wurus la wala xaalis nga di ci jaayee ko jënd ba am ci bénéfice du tee bénéfice ba yaa ko moom moom lam la dénkan rek boo ko joxaatee mu baax moom bénéfice ba amu ci dara yow yaa ko moom waaye nag bu perte it xam nga ne perte bi ci yow lay dellu si du tee lam la dénkoon moom daa war a mat way in baax ndem jaay na alwadi xata ndénkaan la waxiyee te fekk na moom xaralul marchandise ya farab bu xaakon boromam mu xayaru ku ñu tànn loola fi famani ci njëgg awit xiimati wala xayma ja yow ma taxadee ci bisub jàggati ba bu la nit dénkee loo xam du wurus du xaalis nga dem jaay ko du ne mu dénk la rajo mbaa montar mbaaw fas mbaaw nag nga dem jaay ko kon dañuy seet bu fekkee loola nga jaayoon ma nga fa mel na meloon ñu wax waa ji ne ko seetal bu la neexee njëg ju bu la neexee ñu xàcc ko ndegam moom jëmm jaa ngi taxaw dara wéyeeku ci bu la neexee ñu xàcc ko ndax yëfu jaamur la jaay nga jël sa yëfu bu loola xasee raw nag moom yaar rek benn mu nangu njëggañ ko jaaye wala ñu jox ko xayma jaa kon ne bàyyi julee ñoom ñu seet rek julee lu ñu wax ne jaadu na ci loolu ñu fay la loola loolu ba tey baax na kon loolu moom lay wax ci mbirum dénkaan mu ñëw ci for wa man wajada ku fekk luqatatan por fal yu xarrifaa na ko xamle sanatan diru at bi mawdihin ci ab béréb yar jooba dana yaakaar ak taxari fa njariñul xamle ga bi xaa ca moom nee na soo foree loo xam ne am na solo bu baax kon da ngay seet béréb ba nga defee ne ku ko fa laajte borom feeñ nga di ko fa laajte lu toll ni at toll ni at nga ko fay nekk di ko laajte su fekkee nag la nga fol day lu mel ni baag rek baag bu ñu rooti wala ay dërëm rek yoo xam ne bariwut kon boo ko xamlee ay ay ay fan rek ay fan rek boo ko yëglee jébaane te xamu ci dara rek sooy bootee ay fan doy na ci bu fekkee loolu day lu ñàkk solo lool mel ni aw yat rek aw yat dong rek xam nga aw yat amul solo kooku moom du aajowoo xamle du aajowoo yëgle naa ku réer aw yat loo xam ne itam maanaam dafa gaaw a yàqu mel ni yàpp wala doomu orange wala doomu mandarine yi nga xam ne for for nga ko waaye daanaka amul amul njëriñ lu néew néew la te buñ ko bàyyee mu yàqu waaw nga xam ne mënees koo jaay di ci am njëg di ko dencal borom kooku say woo rek lekk jël xamle bu fekkee boo ko jaayee mu am njëg nag kon say boo jaay ko denc njëg ba am borom dana feeñam déet fa in tammat ne mat na sanatun at wala muy ëttite dikkut laxaa ñeel por bi ahadun kenn fa insha ndem soob na ko xabasaha mu téye ko ba tey wa inchaandim soob na ko it tasaddaqa mu saraxe bi haa ca moom nee na nag boo ko téyee at di ko laajte waaye kenn ku ko moom ñëwut kon nee na bu la neexee ba at mu jàllee nga téye ko rek wéy xëy na borom dana ñëw bu la neexee téye ko rek wéy bu la neexee tam nag nga saraxel ko sa bopp mbaa nga saraxel ko borom waaye nag nga saraxel ko sa bopp ak nga saraxel ko sa bor- borom ñoo ci yem borom ñëwee ne saraxe gi neexuma rek da nga koy fay boo saraxelee sa bopp nag xam nga ne moom borom ñëwee nga fay ko lii mooy tax ma teg ci wàllu mi naxaate mu gàddu ko li rabbi xaa ñeel boromam in jaa ndeem dikk na borom ñëwee nga fay ko wa inen tafa ndeem jëriñu na bi xaa ci por bi lami naxaa mu gàddu ko maanaam bu yàlla dogalee at mu mat saraxiloo ko sa bopp saraxiloo ko borom da nga koo far jëriñoo kon ba tey benn la ba tey borom feeñe rek nga fay ko wa in xelakat ndeem alku na xabla sanati njëkk at ma aw bax daxaa wala ci gannaawam bi xëy li taxalikin ci lu dul yëngal lam yedd mën xaa kon du ko waralu nee na bu fekkee la nga faroon nag sàgganoo ci defoo ci dara yàllaa ci def coobareem rek mu réer mbaa ñu sàcc ko mbaa muy lu dee daal di dee waaye yow du ci sa càggante la mbaa ci say pexe la su boobaa dañu xam ne yàllaa ko dogal rek doo ci wàllu dara doo ci fay dara léegi nag bu fekkee da ngaa for lu mel ne lu jur xam ne aajowoo dundal say boo li nga koy dundale nga di ko note di xam ni muy toll waaw su ko defee nag léegi borom dikkee remboursé la loolu loolu jël jëmm ji kooku ne nee nañu bu fekkee ne bu la bëggee remboursé moom it loolu laa gis mu bari loolu bu far moo gën loolaa gën jëmm ji bu la neexee kon mu far lu bàyyee jëmm ji nga faroon benn yoon te tàyyi la remboursé ndax danga ngaan lii bëgg a nekk ci moom wa isa arafa ndéem xam na taalibuha aji sàkkoom alxifaasa këmbukaay ba wal wikaa ak takkun nga axasaha mu jël ko nee na bi ngay laajtee maanaam bi ngay xam lu lu réer li bu la kenn waxee ne la man day maa réer le daal ciy jàll leeralal la lu ko ëmb ak la ko takk te na nga waxee doon noona na nga ko waxee noonu la amee kon say ba jox ko ko ndax yu yaar mel ne neexuta tolloole neexuta tëndale wala yaqusu du jël arrajul waaja daalatul ibili aju réer gëléem ya mu ne saxaraa yi ci àll ba nee na nag boo demoon ci àll fekk gëléem réer fa da nga ko fay bàyyi rek ndax gëléem moom ñëwee na tumuranke te boroom xëy na muur ko muur ko ba agsi fa daal di koy jël kon nag bu ko jëlee foofu di yóbbu ndax boo ko bàyyi rek boroom mën na ko fa fekk bu soobee yàlla wala foofu ñeel na ko ak zuchaati jàpp gàtt ba wa ak luxa akuk lekkam in kaanat dem nekk na bu fay faa ci am mandi moo xam ne laa ximaarata déedu dund fii xaa di nekk ci moom nee na boo doxoon ba àgg ci àll boo xam ne daal na mu àllee doy na waar nga fekk fan ab gàtt mu réer fa nit ak coogal jaar fa rek bàyyi fa gàtt booba xam ne foofa bokk bàyyi rab yi da koy lekk rek waaye moom xalaatuñ kenn borom di ko jël si mbaa dara kon nee na bu la neexee rendi ko foofa lekk waaye nag boo ko jiitalee ba ñëw ci nit ñi moom faaw nga laajte mu daal di amee àtte por faaw nga laajte ko moom ko xasee jiital ba ñëw moom ci nit ñi faaw rek nga laajte wa man istahlaka ku alat maanaam ku yàq xardan marchandise fa xale yi war na ko xiimatu foo xiimaam loolu waxutoon dana ñëw ci buntu bi waaye da ko war àndaale mooy yëfi jaambur moom tey ñàkk tey la yemale saa yu yàq yëfi jaambur rek fay moo ci war ci yoon waaw saa yu yàq yëfi jaambur rek nga tey ak nga ñàkk tey ci yem fay rek moo ci war bu la baalee nag nga xam ne baal na la waaye moom fay moo ci war ba yàqib rajoom ba montaram ba leneen fay rek wa kullu ma lépp loo xam ne wéesanu def na ko peese aw yukaaru la leefi ko natt fa xale yi war na ko misluhu am kemam ah la nga ko yàqal bu fekkee day lu ñuy peese ni ki ceeb mbaa luy natt ni ki pepp mbaa luy wàññi ni ki ay nen su boobaa nga peese waa lu toll noonu jox ko ni ki bu fekkee sa jur moo ko ruural lekk am peppam mbaa ceebam mbaa mu toj mu toj ay nenam nga koy fay rek lu toll noonu ndax loolu moom danga xam nañ nam toll woon kon noonu nga koy fay bu fekkee xam ñu ko woon ñu tolloole rek ndax mën naa mu lu ñuy peese mbaa lu natt mbaa lu ñu wàññi te fekkutoon ñu xam to nam toll dëgg-dëgg su boobaa itam xayma ji rek ngay fay wal xaasi bu aji daan jël daa mu aji gàddu la li maa ñeel la nga xam ne xasaba daan na ko jël daan jël mooy ëpp doole nit nangu yëfam kooku nag araam na ndax xam nga nit daa war a maanu ci lu moomut boo ko defee nit nag loolu nga nangoo ci moom ci loolu yaa ko garanté bu deexoon mbaa dara xew ja yaay fay fa in radda ndeem delloo na daalika loolee bi xaalihi ca melow wa fala shay de dara xaalihi di ko war maanaam nag bu fekkee ne delloo nga jëmmi yëfi jaambur yi dana melal la may ba tey soppi ko liful dara kon dara la ci war lu may ñu yar la mooy daañu la yar nag ndax loolu léegi nga bañ a fekk yëfi jaambur nga nang ko te war ngaa jéglu sa borom it ndax fat nga lu yàlla aaye woon nga def ko te du tee àttekat moom yar la ngir loolu wa in taxayara ndem soppikoo na fi yadihi ci loxoom fa rabbuhu boromam mu xayarun ko ñu tànn loola bay na axlihi diggante ak jëlam bi naqsihi ànd ak manqueem aw tadminihi wala warluloom alqiimata xayma ja ko maanaam daa wax ne bi nga xamee ne ëpp nga ko doole ba nangu yëfam yëfam yooyee ci misaal fa suñ ko misaalee ñëw na yàlla teg ko boobu métti rek ba muy woy te fekk na mu suur waaye loolu xam nga defoo ko yàllaa ko def kooku moom yaar rek lay man mooy day jël fas yi te muñ yooyaay ba waaw kay benn mu téye fas yi noonu rek te xam ne yàllaa ko dogal muñ yooyaay bi mbaa mu bàyyi ñu xayma fas yi moom yooyagutoon na meloon keroog rek fu njëkk toll rek nga fay ko njëg gi waaye waaye léegi moom degam li ci dal yàllaa ko ci def du mën a jël fas yi ba noppi ñu remboursé ko lu tolloog la ca yooyu déedéet moom koy benn da koy jël te muy yooyaay bi rek mbaa mu bàyyi ñu fay ko xaymee fas na mu toll woon keroog ba mu yooyewut bi ci topp nag mooy walaw kaana doon te nekkoon na naqsu wàññi ga bi taxat dii ci jàggateem xuy rekoon tànn loof ko aydan ba tey fii ak fii ci jàppam wa ak fima ak fima ak jàpp la nga xam ne naqsu fa wàññi na ko ko nee na bu fekkoon la ca xew nag moom moo ko ca def ni ki fas yi nga wax léegi nga xam ne moo ko nangu woon ci yow ci doole rek dafa dem di ko dawal ba loolu dal ko waaw dafa dem di ko dawal ba fas yi far yooyu boobu yooyaay loolu xam nga ne kon moo ko ci def ba mu ci liggéey sax far ba far fas yi yooyu noonu su boobaa nee na bi yoon moom dañ lay tànnloo bu la neexee jël fas yi ci boppam mu fayaale la la ca yooyaay bu manqué waaw la neexee ni ñu koy xawoon léegi bu fekkee ne fas yi ba mu ko yooyu gut ni mën naa jar fukki junni juróom waaye léegi bu ñu ko dawalee ba mu yooyu moom fukki junni la mën a jar bu la neexee téye fas yi ba nekk mu dolli juróomi junni bu la neexee itam na nga bàyyi ko lépp fas yi mu fay la fukki junni juróom lu ci bëgg rek baax na waxa def tulu fa wéeteef na fi zalika ci loolu wéeteef na ci loolu waaye loolu jërëjëf mu koy wax ndax li nga wax léegi lañ sukkandikoo rek mooy ndegam moom la ca manqué moo ko ca def ah la ca xew moo ko ca def moom bu la neexee téye ko nopp mu remboursé la lam ca wàññi li doon wax rek moo gën a war wala xale te déet njëriñ jël xaasi bi di ñeel aji daan jël waaye rudd dana delloo maa la nga xam ne ak la lekk na ko min xalatin ci njëriñ awin tafaa wala mu jëriñoo ko nee nag boo poni dool yi nangu yëfam nit ki bu dee kër ngay fayu liyaas ba te fekk na moom këru jàmbur la goo nangu ci loolu rek di fayu liyaas ba mbaa muy aw fas fas wu takkoo ciir nga nangu ci doole yow di ko di lay jox fas way dawoo ciir di lay jox yooyu noonu nga xam ne am njëriñ mbaa sax nga nangu aw nag di ko rat mbaa yu mel noonu yëpp daal lépp loo ci jëriñoo bis bu ko yoon di àtte da ngay fay loola da ngay delloo loola lépp luy xeet njëriñ ngay delloo jëmm ji delloowaale lépp lu ci yesoon ci njëriñ waxale yi war na ko alxaddu jëtan in wate andeem laal na wala du woote doomam ja raqiixun ab jaam la yu rabbil amati ngel borom jëwéer wi nee na jamonoy jaam amee ku ëpp doole nit nangu jaam bu jigéenam daal di joteeg jaam ba dañuy jàpp ne loolu njaaloo la dañuy jàpp ne loolu njaaloo na des na ko gitam gitalum njaaloo te bu yàlla dogalee jaam ba ëmbee ca ba am ca doom dañuy boole doom jeeg yaay ji yëpp dañuy daal wax ne doom doom jim ci am ci njaaloo du tee jaam lay doon borom jaam bi moom ko waaw du tee dana gis ñuy jaamal doomam te du sañ a bañ wala yett bu du tey du tey mooy du dagan li xaasi bil maal yi ñeel aji daan alal rek foofu bénéfice am ba xataa yarut dem ba te mu delloo rësal maali capital ba xalaa xalaa rabbi ci boromam nee na nag boo ëppee nit doole nangu lu mel ne wurusam ba xaalisam dem di ci yaxantu ci misaal ba am ci bénéfice kon bénéfice ba yaa ko waaye na nga delloo capital ba waaw boo xasee delloo capital bi nag yaa moom bénéfice bi waaye bénéfice boobu nag la dikkee daa ñaaw mooy dafa rafetut bi tañoon doo ko lekk moom lay wax naa wala tasaddaqa doon te saraxe woon na bi rëpp yi ci bénéfice ba kaana ko mu nekk ahab di gën a sopp ilaa bax di ashaabi malik jëm ci lenn ci àndaale malik mooy bénéfice boobu boo ko mën a saraxe te bañ koo lekk moo gën ñenn ci ñaan nag malik daal loolu moo leen gën a taamu wa fi baabil aqdiyati nekk na ci buntu aqdiyati shay'un dara min haadal maana ci mi la maana nee na am na buntu boo xam ne ma ngay ñëw ci kanam boo weesoo ba ngay séen ci say bët ba ca toppaat nag mooy baabul aqliyati nee na boo caagee da nga ci gisaat lu aju ci li ñu wax léegi maanaam ci ko siif jaamu jaamur ak yu demee noonu dana ci dana ci waxaat dara foofa. baabul li ab buntu la